sañ-sañ di dóoree amoo sañ-sañ di dóoree waaye nag yow mosoo xalaat ne da nga taxaw fii ndax da ngaa jàppoon ne lu la neex def te dara du la ci fekk réew mi quotidien nee na aji caari mi nga xam moo tuumal Kalifon Sall ba ñu jël ko dugal ko ci kasu bi moom ba léegi ma ngi hôpital principal démb ñëwutoon tribunal dafa feebar ba léegi avocat bi di maître Abdinaar Ndiaye moom nag nee na Kalifon Sall maanaam ku la ci société bi ndax kenn ko tëdd

yi bi ñu enquêté mbir mi gis nañu ne Nafissatou Diédhiou moomu maanaam xaruwu la waaye nag dañoo njort ne borom këram moo ko rayee borom këram boobee sax teg nañu ko loxo déglu nañu ko mandat nañu ko dépp ubbi nañu ci information judiciaire mbir mi fan yi ñu génn la xee woon ca liberté six extension yéen kaay gii de Les Échos xëy di ñu xibaar naan ñu waa FMI ñoom nag jubbante nañ Sénégal wax nañu Sénégal ay dëgg ci lu jëm ci wàllum bor bi nee nañu nag lu jëm ci wàllum subvention énergie bi na ko Sénégal supprimer li nga xam ne maanaam mooy exonération fiscale bi na ko xëy di ñu xibaar naan ñu gàmmu suba la Tiwaawoon jamono ji moo nekk sele bu yoon journal bi de Le Soleil nee na njiitu réew mi di président Macky Sall wax na ay bëgg-bëggam ak li bëgg a def ci dëkk bu sell bi di Tiwaawoon lu toll si ñaari junni ak juróomi téeméeri policiers yoo xam ne yóbbu nañu leen Tiwaawoon ci lu jëm ci wàllum kaaraange ga yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na njiitu réew mi di président Macky ma ngi woon ca diwaanu Tiwaawoon waaye lu ko fàtte lu jëm ci wàllum autoroute bi jógee ci weeten jaar fi nga xam ne mooy Tiwaawana nee na tamit tali ko yokk ak ndox mi ak lumière bi yéen gi nee na moom Macky Sall nee na tamit lu jëm ci wàllum dundu gu cher gi jamono ji moo nekk ci xelama def ay dëbbal dëbbal ngir nag jëlee askanu Sénégal ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekk yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ministre bi ñu denk wàllum wér gi yaram gi démb ma ngi woon ci diwaanu Medina Baye ngir nag vérifier saytu dispositif yi nga xam ne maanaam jëm na ci wàllum wér gi yaram gi gàmm gi yéen kaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naan ñu coalition Yewwi Askan Wi démb ñu ñoom tim ñoo ngi woon ca Medina Baye ngir nag amal seeni ziyaara ñoom Khalifa Sall ñoom Ousmane Sonko waaye nag Khalifa Sall yëkkati na fa ay kàddu daan na dànkaafu Macky Sall nee na képp koo xam ne maanaam yaa ngi ci coalition bi bu ñu la laalee mel nañ ne ñi ngi nekk ci biir coalition bi ñëpp moom la ñu laale Khalifa Ababacar Sall nee na xam nañu ñan la ñu jàkkaarloo la xam nañu ñan la ñu amal affaire ndax ay nit lañ yoo xam ne ñu malhonnête laña ay nit lañ yoo xamante ni ñu jubati laña yéene kaay gi de la témoin xëy dañu xibaar naan ñu Moustapha Niass kan moo koy wut ci boppu parti bi di AFP Aliou Sarr moo koy wut wala Mbaye Dione wala Awlu Jaxate wala Pape Sagna Mbaye yéen a kaay gi ñu xibaar naan ñu Abdoulaye Daouda Diallo ak Abdou Mbow yàlla baax waaye nag oto bi nga xam moom la ñu duggoon bi ñu ñëwee nag ba passé nag Bambey wutali Jurbel oto bi Abdoulaye Daouda Diallo nekkoon ak Abdou Mbow maanaam dafa këpp oto bi këpp jëlaa ñoo ay yooni yooni yoona waaye nag yàlla baax ki nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo neema ministre ak Abdou Mbow ñoom dara dalu leen waaye nag ki nga a a place xëy di ñu xibaar ci mbir moo xam ne mbir mu doy waar a doy waar ndax nee na am na benn médicament benn garab boo xam ne sëqat lay faje ci xale yi waaye nag garab la boo xam ne bu doy waar la buy def ay njombe la Sénégal ma ngi siy alerté ndax ci diwaanu Gambie lu toll si juróom benn fukk ak benn ci xale ñoo xam ne jot nañu safaatoo yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na ubbi tey jàng tey maanaam moom la ñu bëggoon waaye amul ci réew mi gàmmu ko waral nemmeeku fa journal bi nee na naka date bi nga xam ne moom la ñu jàpp date boobee moo baaxul gàmmu gee ko waral ca diwaanu Saint-Louis foofee tamit bëri fay école yoo xam ne maanaam ubbi tey jàng tey amu fa ca diwaanu Diourbel ubbi tey jàng tey amu fa sa diwaanu Sédhiou ubbi tey jàng tey amu fa ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllum njàng meeg njàngale me ñoom nag nee nañu quantum horaire bi bu ñu bëggee ñu respecté ko ñi nga xam ne ñooy kilifa yi il faut ñu respecté seen